li nga xam ne mooy fonds monétaire ak waa banque mondiale ñoom ay partenaires Sénégal lañu ay at a ngi ñaari institutions yi nga xam nga ñooy liggéey ci wàllum koppar ñoom kat lu am solo la ci place bi nga xam ne mooy ci wàllum gestion maanaam saytu li nga xam ne mooy koppar àdduna bi yëpp. waaye ñu gisa tamit rawatina Sénégal ci posture bi nga xam ne am nañ ko suñu gouvernants yi ak suñu ay acteurs politiques yi ak ñi nga xam ñoo bokk société civile la ñoom lu leen amal solo la ci nga xam ne moo ay recommandations ci ay ndénkaane ak loo xam wàllum xeltu la ci ñaar ñi nga xam ponkal li nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum finance ci àdd bi yëpp waaye publication rapport yi nag moom ak statistique lu bëree bëri dañ koy xaar ndax gis nañu ñu bëree bëri ñu ngi koy amal confiance nag naam waaye lim ba nga xam ne moo tukkee ci FMI ak ci Banque mondiale waaye tamit ñu bëri dañuy wax ne kat lu wérte la ndax ñoom la ñuy joxe kat am na fu ñu ko teg waaye résultat yi nga xam ne moo tukkee ci ay études wala développement li nga xam moo ñal ci wàllum finance publique ñu bëree bëri itam dañ koy ngawti ngawtee ndax gis ne ci ay gouvernement am ñoo xam ne dañ naan lii d'accord ci ñeneen kat ay expert la seen liggéey màcc ci wàllu woowee ne daal d'accord nañ ci ñoom gouvernement bi nag moom day fëgg dëdëm ne li nga xam ne kat mooy wàllum jaloore ci wàllum saytu koppar loolee am na ci solo lool kon nag ñu bëri dañ ci daal di ami sikki sàkka ndax gis nañ la nga xam ne moom la gouvernement bi teg wala sax la muy jox askan wi wérul kon nag ci tàmbale ay at a li nga xam ne kat moom lay dund ba léegi daanaka dara soppeeku ci naka la ñu mën a waxtaanee ci lii nga xam ne kat moom la ñu ngawti ngawtee ak bayit yoo xam ne ñooy lebal koppar nguur gi ay statistiques yoo xam ne ma nga tukkee ci ay lim yoo xam ne kat amul fu mu sukkandiku kon nag loolu laaj bu samp la waaye li nga xam ne daal mooy sëy wutaas bii nga xam ne am na ñoo xam jàpp nañ ne bu fekkee ne lii la ñu bëgg liggéey moom du baax waaye modèle ba nga xam ne mooy wàllum économique ci ni dëkk bi doxee loole daal baaxul kon tamit foog ñu daal di indi coppite coppite yoo xam ne dañ koy jaarale ci loo xam ne kat ci gëm-gëmu askan wi kon tamit wàllum sous-développement amit wàllum ndóol ak li nga xam ne ñàkk tollal ci askan wi ak li nga xam ne tamit mooy wàllum ger loolee day yàq dëgg-dëgg wàllum gouvernance kon tam jot na FMI ak Banque mondiale ñu war dakkal modèle yi nga xam ne moom lañ joxe tey tey sukkandiku ci ay réalité sociale yoo xam ne dëkk bu ci nekk daal am na loo xam ne moo la ñeel